Merci. Merci. Euh, voilà, Monsieur le Président, euh, en présentation avec des jeunes. Et pour nous, cette belle initiative Joko ak Maki. Akmaki, mesdames et messieurs dama ces applaudissements c'est pour saluer cette belle initiative monsieur le président parce que da nga bëgg a wax ak askan bi directement te jaaroo fenn fulal ci ñoom alors sans plus tarder dañuy jox gi euh, Fatima Djain, euh, une actrice de développement à Pékin Fatima vous la parole. voilà merci Malik. maa ngi nuyu ñu fi di nuyu son excellence monsieur le président Macky Sall di rafetlu li nga xamanteni si mom moy initiative bi jokko ak Macky euh di wax ni président ñu ngi lay dalal fi nga xamanteni si mom moy Pikine euh tay ji ni ñi fi ñew ñep ku ci nek ci ñun euh ya fi indi sa bop ndax lenn mo la ñor muy développement Pikine muy mak mak ndaw xalé ñep ñu ngi fi tay te ñun ñep lenn rek mo ñu ñor muy fexé ba Pikine euh, nekk au sommet ci li nga xamanteni si mom moy 45 départements yu Sénégal Euh, di présenté wu di wax ni man maa ngi tudd Fatoumata Dieng dëkk fii Pikine cité Sodiba euh, nekk jeune boo xamante ni si euh, master 2 en journalisme communication depuis 2017 bokk ci raar jigéen yi nga xamante ni si tamit dañu def formation en management international du sport Euh, nekk projet boo xamante ni FIFA la CIS en partenariat avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ak euh, li nga xamante ni si moom mooy INSEPS euh, donc nekk programme boo xamante ni si dañuy tàggat ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi nekk ci wàllum sport ci li nga xamante ni si moom mooy ay diplôme ngir ñu nekk sur le haut niveau son excellence maa ngi lay nuyuwaat di wax ni photo yi nga xamante ni si jël nañ ko war ko projeté photo yooyu noonu jeudi lañ ko jël mu nekk ay photo yoo xamante ni ay illustration la dañuy ñëw rek di ko commentaire son excellence ñuy wax ni fii nii nga gis photo bi nga jàkkaar lool mooy complexe culturel Léopold Sédar Senghor ñu arrière ko nga xool donc fii complexe culturel Léopold Sédar Senghor mooy photo bi nga xamante ni moom moo nekk mooy nekk ci ginnaaw mooy njëkk Euh, photo bobu nonou ngay gis euh, mu nek complexe culturel Léopold Sédar Senghor euh, di fo xamanteni si jeune yi dañ fay dajalo dañ fay waxtaan mais complexe culturel Léopold Sédar Senghor dañoo entame woon li nga xamanteni si mom moy réflexion travaux depuis 2015 ba légui ñu def ci 150 millions té bobu ba légui ni dara avancé wul ñu japp ni sax dem nañ ci ay information ñu né entrepreneur dafa lek xaliss bi donc 150 millions yo xamanteni acteurs yi nga xamanteni dañu nek ci complexe bi japp nañ ni peinture kase lañ fa def image bi moy complexe culturel Léopold Sédar Senghor bâtiment bi ni nga gis mom la ñuy yokk ci bâtiment bi ci 150 millions yoyu non te bâtiment bi ni so xolé léegi mo nek fi nga xamanteni euh, ñi nga xamanteni si dañuy nek ci buntu Pikine euh, ak euh, alentour yi fi lañuy dajalo dajaloo yàggul dara mbëtagul ñetti semaine Euh, faat nañ fi benn nit toog na fi presque deux semaines ñuy soog a découvrir li nga xamante ni si moom mooy néew boobu noonu donc foo xamante ni espace boo xamante ni ci euh, pour retrouvaille la pour waxtaan ñu laaj son excellence euh, li nga xamante ni si moom mooy infrastructure yi fii ci ville bu Pikine lan nga ciy wax deuxième photo bi mooy fi nga xamante ni si moom mooy stade Alassane Djigo donc euh, stade Alassane Djigo nek fo xamanteni ni si dañ fay dajalo ngir amal fa ay match nek ben infrastructure bo xamanteni ci département de Pikine la nek mais son excellence biñ fi ñëwé en 2019 da nga jëloon euh, yenn ci ay décision yo xamanteni ni si dooroon nga ko nga ni ni que stade Alassane Djigo du ko habité du ko habité ak fi nga xamanteni ni si moom mooy marché syndicat ak fi nga xamanteni ni si moy euh djuma euh, ji nga xamanteni nek na fa parce que dafa nek yo xamanteni andul tey jii nii ñu gis ni euh, stade Alassane Djigo mooy stade bi nga xamante ni euh, ci Sénégal boo fa ñëwee doo am foo gaare amul parking ndax état bi nga xamante ni si syndicat bi moom la dëkkee ak foofu noonu jumaa ji itamit même chose euh, ñu lay laaj lool noonu aussi lan nga ci xalaat ba léegi nii ci foofu noonu marché syndicat itamit mu ngi nii gis nga ko fii mooy terrain basket stade Alassane Djigo fii la jeunes yi di foowee fii lañ leen fekk image yi jeudi lañ ko jël mu nekk ay photo témoin yoo xamante ni si fa lañ leen fekk jumaa ji mi ngi nii cohabitation bi nii la demee fi nga xamante ni moom mooy stade bi jumaa ji ak marché syndicat ba nga fi ñëwee woon itamit waxoon nga ni da dañ la soumettroon ay projet ñu ne nga ni bëgg nga def li nga xamante ni mooy marché syndicat euh, marché bi ci Afrique de l'Ouest euh, ci sous-région bi donc loolu noonu nekkoon ay mbëbët yi nga xamante ni si ñoom loolu lañ bëggoon ba léegi nii mu mel ni euh, ñoom ñu ngi xaar suñu xoolee image yi ci topp aussi mooy euh, sur le plan de l' assainissement yi tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite fi nga xamante ni si moom mooy département bi euh, boobu ba léegi nii euh, ñu ngi gis li nga xamante ni mooy eaux usées yi lii nii ba tey stade Alassane jigo la syndicat ak fi nga xamante ni si moom mooy jumaa ji fii la ñuy jaar xale yi fii la ñuy foowee fii la ñuy jaar ngir jéegi dugg ci stade bi fii la ñuy jaar ngir jéegi ci biir jumaa ji fii la ñuy jaar ngir dugg ci fi nga xamante ni mooy syndicat bi ñu lay laaj itamit yan saafara nga ci fas yéene def yeneen image yi ci topp nekk fi nga xamante ne si moom mooy Dominique wàcc jàpp tali bu bees Icotaf ak fi nga xamante ni si moom mooy ginnaaw raay ñu lay wax ni ay zone yoo xamante ni si la amul canalisation Pikine soo xoolee ci tali bu bees Icotaf rue du syndicat benn tali moo fa am canalisation muy tali bu mag ñu lay wax loolu ay jàngoro yoo xamante ni si bëgg nañ nga saafaral ko su ñu ñëwee fi nga xamante ni si moom mooy si côté arrêt national plus particulièrement bi nga xamante ni moom mooy Ndiassane nekk fii ci arène nationale moo nekk nii image yi tamit jeudi lañ ko jël muy ay kër yoo xamante ni si seen borom dañ ko fa abandonné ndax euh, eau yi nga xamante ni mooy eau usée yi dañuy refoulé waat ci biir kër yi ba ñooñ dañoo dem abandonné seen kër yi ñoom tamit bëgg nañu xam euh, lan moo war a nekk saafara gi ci loolu noonu ñu wax ni euh, ba tey jii nii fi nga xamante ni si moom mooy quartier Ndiassane euh, ndox yi dañuy taa foofu noonu taw bu daaw dafay fekkanteeg taw bu ren loolu itamit ay jàngaro yoo xamante ni si bëgg nañ nga saafara ko lii ba tey ci quartier Ndiassane la mu nekk yenn ci ay kër yoo xamante ni seeni borom euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy luwe ci biir kër yi ñoom nee nañ jafe-jafe yi ñuy am bokk na ci su nawet jotee ñu jox leen deux cent milles ngir ñu dëkk ci biir ndox yi toog fa bu nawet bi weesoo ñu dem euh, donc fi mu nekk nii ñëwaat nañu parce que nawet bi euh, jeex na mais du ñu mën a dëkk ci suuf ci kaw la ñuy yéeg donc loolu itamit bëgg nañu ñu am ci ay saafara beneen bi ci topp mooy maison de la jeunesse bu Pikine defoon nañu pose première pierre bi moo nekk nii fii la nekk maison de la jeunesse bi bëri nañu de <laughs> yii ay jàngat la ay photo ay photo maison de la jeunesse bi moo nekk nii fii bañ defee pose première pierre bi ba léegi def na at ba léegi nii dara changé wul ñu lay laaj itamit fan lañ ci toll pour ñu xam euh, donc je pense que ni loolu moo nekkoon suñu jàngat di la itamit fii nga xamante ni moom mooy Pikine ville euh, amul li nga xamante ni si moom mooy CEDEPS amul foo xamante ni si espace boo xam ne jeunes yi ñu ngi fi euh, donc loolu itamit bëgg nañu nga bàyyi ci xel jërë ngeen jëf. alors peut-être Denis jël question mon est-ce qu'on fait réponse question réponse ou on prend deux questions trois donc a question réponse bon jërëjëf kon merci beaucoup Fatima Euh, merci surtout Yen goney Pikine jeunesse pour Pikine Euh, boo leen gisee ma tàmbalee pikin ci xalaat bu bees bii ma am ci li ñu tuddee jokkoo ak Macky dama gis ne léeg bu ma arrêté ay politique publique maanaam li nguur gi war a def jëmale ko ci askan wi malgré effort yi ñuy def damay gis toujours ne boo laajte ci suuf dañ naan la ñun gisuñu dara wala yegseegul si ñun waaw loolu daf may xaw a jaaxal ndax li ci mujj mooy xëyu ndaw ñi mu doon programme bu ama ama am solo boo xam ne ñeenti téeméeri milliards la ak juróom fukk si ñetti at maanaam at mii ñu nekk deux mille vingt et deux mille vingt et un ñu génn cent cinquante milliards lañ ci waxoon loolu waroon na mën a andi juróom juróom benn fukki junni ak juróom ci ay xëy soixante cinq mille yu bokkul ak beneen programme bu ñu tuddee woon euh, convention état employeur mais dama joxe digal ndigal ministre pour que buñu jël ñu jël dans chaque commune du Sénégal su ko defee quota bi 65 millions. mille dañ koy répartir ce délégo manam ci biir réew mi commune bu ne mën a am as wàllam su ko defee au moins dinañu am li ñuy wax équité territoriale waaye souvent dinaa laajte ci gox ñu ne ma ñun de président amuñu benn recrutement moo waral ma ne dinaa tàmbaliwaat façon bi manam di len déglu directement sans filtre sans rapport pour xam deug euh seeni xalat seeni mebeut ak euh, problème yi nga xamne ne doléance yi ngeen poser ni ko Fatima Dieng waxé légui ci seen tour may nuyu d'abord euh, préfet bu Pikine parce que moom mooy euh, mooy département bi te lepp lu ñuy def ci tour état bi kon ci loxom lay jaar fofu ginnaaw préfet tam dañu am ay maire le maire de la ville de Pikine maa ngi koy nuyu lay Thimbo di nuyu les maires des différentes communes parce que ñooñu yéen a leen tànn ñu toogal leen ci kuréel yi di nuyu jeunesse bi dans toute sa diversité jeunesse nag boo ko waxee euh, am na d'abord ay représentation yu ci am lu ci mel ni conseil national de la jeunesse ak ses démembrements muy conseil départemental conseil communal conseil local ak aussi yeneen ndaw yi nga xam ñu ngi yëngatu ci seeni bopp wala ci sport bi ASC yi nawetaan yi yeneen yi nga ay artiste lañu ah yor seeni bopp donc moo taxoon ma ne avec l'aide du préfet ñu fexe catégorie artisan yi artistes yi euh, am ndaje échantillon manam lo xamné représentatif na ci jeunesse Pikine su ko defee bu ma ñooñu ma xool euh, ñi nga xamné aussi ñoo yor liggéey bi ñu ngi leen di déglu fi mu nekk nii parce que wax leen ñu connecté leen muy waa DER waa wa euh 3FPT ñi yor walu formation professionnelle DER bi financé euh ANPEJ bi nga xamné moy recevoir demande jeunesse bi yëpp pour xool nuñ leen di orienter mais aussi ministère yi nga xam ne ñoo yor wàllu liggéeyu ndaw ñi ak yeneen i ministère comme yu mel ne urbanisme environnement te ñoom ñoom ay quota yu am solo ci xëyu ndaw ñi mais loolu ci wàllu woowu rek la yow nag li nga laajte c'est pratiquement ay question de développement question de cadre de vie à Pikine kon danaa sawar tontu ci loolu balaa may ñëwaat surtout ci programme mu xale yi ci wàllu li nga wax ci complexe Léopold Sédar Senghor euh, jàpp naa ne euh, dafa nekk loo xam ne ci loxo ville bi la nekk euh, dëgg la Pikine bariwul infrastructure te li wara loolu mooy Pikine dañ ko tabax ci anam yoo xam ne loolu lu yàgg la ndax man ba ma ñëw Pikine ci ay années soixante douze soixante treize nekk ndaw aussi fa ñëw vacances ci mais di dem ay guy fàtti mayga di dem quartier CFA di dem ba Géejawaay jamono jooju déjà problème dafa amoon mais booba daawul am ndox ay jamono bekkoor la woon après les années soixante treize booba Pikine plutôt suuf moo fa bëri woon boo daan dox dangay sonn ndax salañ su bëri suuf su bëri tuyau boobu di jógee caaro di dem guy fàttmeke dem dem mooy tuyau ndox mi boo fa daan dox dafay bëri suuf léegi nag changement climatique yi am na diggante bi nit ñi dem nañ dëkk ci xuri bi taw yi ñëwaatee nag nga xam ne bekkoor jeex na évidemment ñoo ñëpp ci ay dégla ñu nekk loolu mooy programme bi nga xam ne ñu ngi ci taxaw boobu léegi boo demee tey fu mel ni euh, ak géejawaay fu mel nu Medina Gunaas fu mel nu même waxinaan waxinaan kay ku ko dégg xam nga ne euh, zone ndox la ci Pikine aussi ci yëmbal ak gox yooyu yëpp Dalifort dañu nekk dans des bas-fonds at yi yëpp nag am na ay ay efforts yu rëy rëy yu ñu ci jot a def ci wàllu assainissement à travers li ñu tuddee programme décennal de lutte contre les inondations tey boo ko laajee waa Dalifort dinañ xam ne tan am na fa ñu ngi def assainissement aussi alors terrain boobu euh, bi nga wax muy stade euh, Alassane Djigo ñun ñoo ko reprendre man ma tabaxaat jumaa bu Pikine bi marché syndicat dañ ko war a tabaxaat ñu ngi si aussi parce que marché bi biñ ko xoolee xam nañu ne pour mu mën a dox nekk cadre bu baax foog ñu ñu changer complètement la fa nekk tabax marché bu bees boo xam ne sur deux niveaux lay doon minimum su ko defee mu mën a ànd ak jamono ak ànd ak li nga xam ne tey noonu la ñu liggéeyee programme boobu bàyyiwuñ ko puisque waa HTM ñoo yor liggéey bi ak Petrosen na yoroon une partie du financement jamono ji dama am lu toll ci juróomi marché ci biir réew mi moom la ñu war a tabax en même temps donc lépp nag euh, mënuñ ko defandoo ci benn bés moo waral retard bi parce que def nañ ñaari yoon ay étude étude bi ñu njëkk a jox satisfaire u ñu reprendre étude bi bi mu paree ñu valider ko léegi ñu ngi ci euh, financement bi aussi c'est couvert am nañ ko mu des procédure sélection entreprise parce que état aussi doo tëb rek ñëw tànn ku la neex parce que dafa alalu mbooloo la dafa am yoon bu ñuy jaar pour di jël entreprise yi looloo ko tardal moom marché syndicat marché central bu kawlax marché bu marché bu bu bu bu Njaareem ah Ndumbe Diop boobu daanaka pare na marché bi nekk Tilène ci Ziguinchor yii la ñu la ñu war a tàmbali ak marché Sandaga pour reprendre leen ci anamu marché yu bees yoo xam ne day méngoo ak jamono am assainissement au usée am assainissement au pluvial, mais surtout cantine yi mën a mën a nekk cantine yu yu méngoo ak jamono mais syndicat comme marché fruits la ak légumes il faut que aussi ñu régler problème stationnement bi te bayal bi taxu ko yaatu donc loolu moo moo waraloon retard bi mais ni ñu defaree encore stade bi ak jumaa ji bu ci yàlla àndee daañ ko defar marché syndicat defaraale en même temps tali bu bees euh, defaraale également euh, ICOTAF ak lepp luy assainissement ci walu département bu Pikine donc loolu dama ci dal sen xel mais jël na note parce que li du ay question yu ma don xaar donc euh, li ci mën nek rek moy lu ne bind naa li wor moy altine ak alarba conseil des ministres sujet yi dinaa ko ci table yi ministre bu ne li ci se wal ñu tibbal la jox lako ma laaj nag ay dogal yu gaaw yoo xam ne dina tax euh, waa Pikine bu ma leen bu ma fa ñëwaatee dañu mën a euh, am mbégte euh, quartier Ndiassane arène national xam nga ne foofu mais xur la woon arène nationale mu ngi bokkoon ci technopole ndox moo fa amoon arène bi ci boppam pour ñu tabax ko dañu sëkk sëkk sëkk lu bare bare donc moom génn na si ndox mais ñi si ginnaawam ñooñu ñu ngi ci ndox donc arène bi ñu ngi liggéey pour yaatal parce que Pékin, il nañ ne cité administrative même seen préfecture gis ngeen ne ngi parce que espace amul donc espace bi arène bi a ko nañ le maire de Pékin Nord pour que une partie ñu ci Nord ak waa Ouest bi ñu def ko cité administrative tabaxal leen la préfecture et tous les services tribunal nga département war na ko soxla surtout département bu toll Pikine li toll nag li jëm ci maison de la jeunesse moom it foofu la nekk li tardel liggéey bi tàmbali woon nañ ko moom la njëkk a tàmbali d'ailleurs mooy mbirum assainissement bi donc dafa war a laajaat yeneen renfort mais loolu ñu ngi ci incha allah Pikine dana bokk si ñu seen maison de la jeunesse et de la culture di njëkk a pare loolu nag day mooy remplacer ci

dana am aussi tout piscine dana am yeneen i euh, kuréel yoo xam ne loolu yëpp ci genn kër gi ngir jeunesse bi mën a vraiment gis boppam ci loolu nga xam ne mooy maison de la jeunesse et la culture te département bu nekk ci biir Sénégal war na ci am benn donc loolu aussi tàmbali nañ ko juróom-ñetti département waxtu wi may wax ak seen chantier ubbi nañu ko yeneen i fan yi ak at bi di ñëw incha allah si leen di song kon je crois que loolu laa mën a wax en Euh, ma joxewaat ndigal ci dossier assainissement yi ngeen wax mais surtout complexe Léopold Sédar Senghor bu pikin ñu xool nuñ koy moderniser mu mën a ànd ak jamono jërëjëf